Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activez la cloche de notification. Vito Feugueleu moo aye tey moom la ñu war a fas yéene waxtaanal tey dañu waxtaan ak moom ci lu yaatoo yaatu moom Feugueleu. waaw mais champion. allo. est-ce que du écouteur yi. ndewuñ ah. waa champion maa ngi siyaar bu baax. waa ziar naa la bu baax a baax noo waar ba leen ñu àq gaañ. baal nañ bu baax a baax champion. yal na yàlla boole baal gaañ ñu teewee déwén yu bëree bëri gaañ ah. amiin waay amiin amiin sant nañ bu baax ñu ngi sant sëñ Tuubaa bu wér a wér. Eh. naka naka dëkk ba naka États-Unis waaye Amérique ngi nii rek dëkk bu mag bi mi ngi nii rek yaa ma gën a xam mi dal jaam rek yaa ma gën a xam. man li ma doon xeex suma live wéet sama néeg di ko xeex na man lamsaar dinañ ko tudd man loolu laa doon jaayante. man dem naa hmm. ba à la fin aw ma temps wu toog te entraîné wu ma dama yeewu quatre heures di entraîné parce que boobu dama woon lenn lu ma bëgg saa bi. mais man man booy banlieue laa man lamsaar laa dëkk man lamsaar laa dëkk xam nga lu mu dee dee dee dee yàgg naa ànd ak ay nit xam nga. ñu topp ci ginnaaw ma dem dugg ci mbooloo def li ma saf pare génn ak yooyu wala ma ñëw bëgg a yàq ba pare yàq wala man daal coow moom yàgg na ci man mosu ma am pression làmb loolu mom yàlla dimbali na ma ci. Hmm. Hmm. pression làmb mosu ma ko am wax dëgg yàlla. Hmm. waa ji wax léegi Pape Pape Adama nee am lan Pape Ousmane nee na war a war yi. waaw kay loolu laa bëggoon ñëw ñëw lan saa. waaw parce que man booy xool booy xool écrit loolu loolu bokk na ci li ma réccu tamit sama carrière loolu bokk na ci loo xamante ne regretté naa ko ci benn côté ci benn côté regretté wu ma ko man ci ñu mujjee ñëw écrit ci laa bokk parce que man ba Tidiane waxee ma la dama gëm saa yu ma daane dama naan maa gërëm waa écrit Lamsaar te fekk maa ngi écrit caaro yi. am ñoo xam ne biir écrit caaro du leen neex del wax maa ngi gërëm hmm. waa écrit caaray ma ne maa ngi gërëm waa écrit caaray mais maa ngi gërëm waa écrit lamsaar te boobu lamsaar amul écrit après ci laa ci laa jékki-jékki voyage yi dem juwaalo ñëw rek jékki-jékki dégg benn gaayan bu ñu naan Idi dafa nekon commit ku ñuy jàppale kuy sonn ci ñun hmm. tey compte compte bi ma njëkk am kooku moo ko ubbi quoi def ci sept mille cinq cent dafa nekk moo njëkkoon sonn après ñu jékki-jékki ma voyage ñëw ñu ne ñoom ubbi nañ écrit bi quoi beru nañ dafa fekk lijjanti nañ lépp ci suuf ñoom ak ñoom Tidiane fay xam nga yëgu man man innocent laa ci jékki-jékki rek ñu ne ma ñëwal man leen ñëwuma man boo xoolee galaa bi yëpp ba Tidiane Faye di bëree lamsaar man caaree la bëree caaree chirmère laa bëree. effectivement. Eh, man gëm sa bopp laa doon bëree boobu moo bëree ko ba galaa bi jeex après nag pression bi bari koñ ba ku nekk fi nga dëkk sama boy yi xam nga kalaasu vito gi xam nga di joteeg yeneen fans club bi xam nga affaire bi après doy waar quoi ay côté 2008 eh, ay côté 2008 yooyu xam nga. Mm. coow li bari xam nga sama booy coow li bari xam nga ñoom booy gay coow li bari waa Lamsaar yi man maa ngi yeewoo Lamsaar après affaire bi commencé paa bu ma ci dajal rek nga ne ma mbër ñëwal Lamsaar fii sa gox la da bokk ci ñu xeex dëkk bi xam nga. Hmm. noonu noonu jàppal wax ji may jóge di dem ma dëgër bopp rek di entraîné ji caaray su bëree jotee ma bëri ji dem daan après clan bi doy waar quoi clan bi commencé nag am léeg-léeg booy xeex fii xam nga man naan affaire bi di ma jaaxal quoi suba sa rakk xeex fii ginnaaw suba benn booy bu sa siiw xeex fii xam nga après ñu commencé benn combat ma daanu waaw benn combat ma waaw ma daan dama daan booy dugg ci koñ bi wër ruube mm-hmm. xeex ak xeex ak waa benn gang bu newoon foofu damay bañ a seen tur xam nga affaire bi mm-hmm. nag commencé di ma dépassé quoi ma dajeeg benn paa mu ne ma ci gox bi nga dëkk fi nga yaroo comme toll na nii ba mu jaral leen ñenn ñu ñëwal après ma ne garaawul dinaa xool tewul ma bañ mais dama xam nga mm-hmm. nees dañoo yàgg ma ak moom un jour ñun mu ñëw sama gaale yendu si jékki-jékki rek na àbb ma sër dem lamsaar kontaa gi Hmm. xam nga ñëw na ma ñëw kontaan na ma booy nañ dem kërëb kërëb topp ma xam nees moom li ma doon defloo may bañ bariwul quoi. d'accord xam nga parce que su la après ci laa japp jour xam nga. dem entraîner premier jour xam nga may entraîner ji Lamsaar mu fees dell fëgg la ñëw na ñëw na ñëw na après ñoom laa ñëwee quoi. dem waxtaan ak père àlla waxtaan ak àlla mu ñaanal ma ma ñëw quoi. yow su ma la bu baax euh, écurie Thiaroye boobu après dafa parce que la jógee bu ma juumul. waaw waaw après après ñaar rek après ñaar la parce que ka Thiaroye Cap-Vert gars yi ñooy wax mais Thiaroye Cap-Vert mosul bokk ci Thiaroye Thiaroye géej donc récépissé Thiaroye géej la ñuy bëree mais mosuñu entraîner place ñoom fële la ñuy mooy fi ñoom rek rek nekk nii comme tey ñoom fële la ñuy mais dafa mujjee tas ñaar xam nga man yàlla dafa def ni kenn ku ne làmb am na koo ciy fan man lamb ñaar laa ci fan Baye Mandione laa ci fan ak Moustapha Gueye Moustapha Gueye un euh, danañ ci danañ ci ñëw bàyyi ma joon mu nekk ko mu nekk ko koo xamante ne buñ ko bàyyi ma joon jamono kenn ku ci nekk boo amoon làmb ñett ñooñu ñëw wër loolu mu nekk quelque chose boo lu borom waar la lu neex bu mm-hmm. ne la te mm-hmm. tibb boobu noonu xëy rek tas ku ci nekk mooy loolu loolu nu mu demee Doro ma maa lay nuyu borom Paris rakku dibite kooku magam sama gaayan la Doro borom Paris ñu ngi lay nuyu a ah. yaa ngi dégg waa waa loolu loolu tas boobu nag naka dinañu bari man am na ay nit ñu ma ci kar parce que Dio tey Dio tey Baye Mandione Nees Feugelal Cheikh Diop loolu dafa garaawoon loolu loolu. Mhm. loolu dafa garaawoon bu Ndione waree bëree kii taxaw laaf bi kii taxaw laaf bi loolu beneen affaire la quoi. loolu loolu mhm. dafa garaawoon loolu dafa yéeme woon mais xam nga rek xëy na ànd moom suñu borom moo koy dogal xam nga après bu tas jotee rek suñu borom moo koy dogal quoi. mais nekk na loo xamante man ni ma ci kar wala woo ma téléphone di ma wax lool warul woon tas dafa bari dafa bari mais mais man yoon moom amuñu réeroo ba tey ñu ngi déggante dañuy déggante gëj nañ déggante fan yi mais dañuy déggante su ma ñëwee Sénégal dama koy seeti lu mu xewle dama ciy dem xam nga moom it damay woo suma grand la daf may seet si de xam nga donc nga ñëw nga ñëw Lansar ñëwee Lansar kan ak nga fa fekk Sow Tidiane Faye ci champion yi non ñëpp ñi ma dëkkal rek ñëpp laa fekk seen tel man man maa fa mujjee ñëw ñëpp laa fekk ñoom nekko réel parce que gars yi ñoom nekko réel ñoom ba leen idi waxee ñoom dañoo jóge caare rek ñëw parce que amuñu ci benn kii mais man dama ne mënuma xeex lamsaar ba mu toll fii bokk ci ñi fi njëkk am licence xeex ba mu toll fii ñuy ñoom ñuy jékki-jékki di dem waxuñu ma. léegi ma ne leen ñëwuma man ma ne leen ñëwuma. Mm-hmm. eh ma ne leen carrément ñëwuma. Eh. d' accord d' accord après ngeen ñëw lamsaar bi ngeen ñëwee. Euh, bi mu ñëw Lansar xam nga. ñoom ko réel. ne ko ko réel Sentel. xam nga eh, Sentel Ibou Diola amoon na benn gaan bu ñuy wax Ibou Diola. Eh, papa papa kan ñëwoon na fa papa kan tamit nekkoon fa waaw ñu nekk ay tenor super étoile. tigre mm-hmm. tigre un. après ñu nekk ñun waaw. ngeen ngeen nekk ñoo allah ngeen nekk benn crème mais période booloo. Hmm. booloo. heure entraînement ñëpp teew ñuy. bëkkante ba timis. waaw sélectionné. course lapin appuyé avant ñibbi ku ci xëy ut foo entraîné jee mais ngoon gi ñun ñëpp ay daje. mbëkkante. Mm. loolu moo nekkoon fooru lamsaar. ok parce que da ngay bëree kii kii am xam-xam bi nga bëree kii kii am xam bi kii am foor bi kii am foor bi. soo dajalee mm. loolu après boo demee ci lamb bi da ngay tëf fu la ubbi rek dangay ngay mën a taxaw jàpp sa bopp def lu la saf. Mm. looloo nekkoon suñu foor te foo tool da ngay am doole. Eh, ba pare ñu amoon ñoo xam ne spécial ay xeexkat lañ si biir mbër yi boo paree da ngay takk gant sentel wala nga takk ak gant fëgal wala nga takk ak nees. ñu xool ñi nga xam ne bëre bi lañ foor ñu boole leen bu ñu paree ku mën a bëre ku mën a xeex xam nga da ngay complet quoi avant nga dem stade yow bon yaay gën a sawar sax gaa yi làmb ji ñëw. dëgg la dëgg la. ñu jékki-jékki gis ni euh, jékki-jékki ngeen niveau bi wàcc lu xew. liñ doon def lañ defatul niveau bi wàcc. benn bi liñ doon def lañ defatul niveau bi wàcc ak deuxièmement suñu borom nekkul euh, lamsaar kese day bàddeel hmm. ñeneen ñi tegale nañ trois ans di jël maire écrit Mm-hmm. man li ma doon mm-hmm. xeex suma live wéet sama néeg di ko xeex na man lamsaar dinañ ko tudd man loolu laa doon jaayante. man dem naa ba mm-hmm. à la fin aw ma temps wu toog te entraîné wu ma dama yeewu quatre heures di entraîné ji parce que boobu dama woon lenn lu ma bëggoon mooy lamsaar dañ koy tudd. parce que léeg-léeg nga romb nit mu ne waaye booy duñ ay mbër. message boobu dafa baax. waaw. message boobu dafa baax. ñi des fois nag mbër dina ko dégg mer te fekk message boobu moo lay def li nga war a doon. man su ma ko déggee damay kontaan gën a concentré wu sama bopp kon sama bopp xam man maay kan mm. moo tax jour bi ma demee jour bi ma demee ba dégg lamsaar jër na pee dama kontaan dama sant yàlla xëy xëy sant sant yàlla xëy def samay sarax sant quoi xam ne tey li ma bëggoon yàlla may na ma ko quoi mm, mm. alors mu nekk mu nekk génération bu naaj sol aussi suñu papa Maxime Berger euh, nekkoon ci ginnaaw aussi danañ ci danañ ci mais euh, bëgg naa xam actuellement yaa ngi si ñaata combat di nga ba tey yaa ngi bari na moom mais du ma ko jàpp dem naa ba koy caaj parce que xam naa di nga ma ko laaj mais dama xool indiwuma sama kii bi quoi indiwuma sama agenda bi ñëwul Amérique mais bari na quoi mais xam naa ni daal defet moom man laay gën a jàpp man defet moom dama daf may naqadi ba dama koy jàpp ñi ma daan moom jàpp naa leen mais victoire yi bari na maa ngi ci maa ngi ci ay trente et quelque moom maa ngi ay trente et quelque combat parce que jour yi Vito laa bëgg wér Vito Vito <laughs> de Vito de xam na xam na ci lu bari de xam na ci lu bari de xam na ci lu bari sax moom. mais moom xam na ci bari c'est que dafa nekk booy dafa nekk booy jege ma moom dafa nekk booy jege ma. jege ma quoi jege ma bu baax. bon dégg na dégg na lu ne dégg na lu ne quoi dégg na lu ne lu ne la dégg ndax man dafa nekk booy jege ma concentré ci boppam dem na ba koñ ba dañ koy wax dofu fëga la moom xam na lu bari ci carrière fëga la parce que live nañ ko quoi. Hmm. donc nee na nee na vingt huit combats vingt huit combats douze douze la wax donc. donc nga ne combat sa mhm. ëpp na vingt huit ëpp na parce que keroog am na maa kan am na ku ma doon waxal di ko calculer nii. waaw fàtte woon ci dugal sama combat ak double moteur fàtte ci dugal sama combat ak euh, Alioune Seye 2 daa ko jàpp après pour beneen yoon bu ma keneen laajatee mais vidéo moom xam na ci lu bari. d'accord Vito euh, nga ne defet yi ñoo la parce que waaw defet yi laay gën a jàpp parce que defet dafa am defet yoo xamante ne nii. Euh, daf ma dafa yàq daf moo moo yàq sama làmb quoi. Mm-hmm. waaw dafa defet yoo xamante ne nii moo yàq sama làmb defet yooyu moomu ci gën a métti mais ñi ci des moom ñi génn làmb ci seen defet méttiwu mais ñi ci des ak man moom seen defet daf may métti parce que damay bëgg a fayu. Mm-hmm. waaw. Euh, su ma ban combat Matar Gueye maa ngi koy bëggee Matar Gueye maa ngi koy bëggee bu wér Matar Gueye moom ci champion yi nekkoon lamsaar ci la bokk mais mi ngi Italie Matar Gueye mi ngi itali moom it moom it xam nga booy xool moom moo ñu jiitu ci làmb moom benn instant dafa jóge kees ñëw dooleel ñu waaw ku ci am combat ku ku ci am combat ak la ak làmb ni méttee yéen cinq heures du matin quatre heures du matin mais kooku di tourner partout dans le monde doo ko yéene naan ay ci cas bi. bokkul xam nga problème bi xam nga problème ah, waaw. ci lamb léegi ma wax la dara <laughs> ñaata journaliste ñoo newoon ci lamb ji daw dem liggéey ñaata. am na ñu ci xam. waaw mais d'accord mais mais. wala lan moo tax ñuy concentré mbër yi daw nañ nañ bàyyi mbër yi daw nañ leen ñaanal jàmm. yéen yéen a siiw yéen yéen a siiw. yéen yéen a siiw. mais mais est-ce xam nga ne cat baaxul. dañuy tax ñuy dañuy tax ñuy képp seen doomu réew di la catu làmmiñ baaxul de. mbër yi mbër ambassade boo dugg léegi pour ñu may suñu booy yi problème la. is ce xam nga loolu. man gis naa ci ay sept mbër yu ñu rejeté sept ñoo xam ay daanaan lañ def dara lamsaar Mhm. def dara ci def dara ci ci yeneen écrits yi mais dañoo dem ñu rejeté leen man. d' accord parce que wax wax ji quoi wax ji dañu concentré ci mbëri dañuy daw dañu nañ bàyyi loolu man chaque année damay tukki dama damay ñibbisi parce que maa ngi sant yàlla. waaw non yow moom tukki moom tukki moom li nga maam les li maam les wax rek a ci nekk yow <laughs> mooy loolu xam nga ma la man maa ngi tukki maa ngi ñëw. xoolal loolu ko sentir. maam les yow yaa moom tukki mais man xam nga li tax mais may uyu ma. xam nga man li tax may def loolu loolu laa sentir. waaw d' accord d' accord naa. mais gis naa fi mbër xoola gis naa fi mbër mu jóge Amérique ñëwaat senegal ba muy demaat dafa am problème mu billet dafa mujj di di di di di di nit ay mille ay ay ay vingt mille vingt cinq mille pour amaat billet. d' accord mais kooku bu ñëwee fii bu ñëwee am liggéey bu baax du ci jàpp suturlu. ok ok ok. nañ bàyyi loolu quoi nañ arrêté. am na solo dañ leen di namm rek yooyu xam leen namm namm leen yeneen mbër yi fa ne jaay leen mbër yooyu te bàyyi ñi ku bàyyi làmb bàyyi leen ko ah. mooy waaw fëgg la voyagé yaa ngi États-Unis hmm? Hmm. la euh, la mëbët dèjà parce que am nga combat kañ nga fi mu ne nii moom ñaan yàlla xam nga balaa bi jóge ci àdduna bi parce que àdduna ñëpp sonn nañ. waaw su affaire yi jàllee incha allah ñu waajal suñu bopp saal yi ubbi ñu waajal suñu bopp indi saayes bi ñu bëgg indi ñibbisi loolu la ñu waajal. ok parce que yaakaaru ma mën naa am sax làmb du am ren man xam na rek boo moytuwul parce que lii ma gis nii. non saison tëj na déwén kay la ñuy wax. waaw. déranger mais. Lamsaar bu may ñëw Père Aline Diop benn combat ñëw àndut ak man te dafa xawoon tawat maa ngi koy nuyu en passant suñu papa ju baax la day sonn ci ñun. mais man. Hmm. la man maag Moodu Fëgala rek ma bëri ji man maag Daara Sandi rek yor bitéeli Senghor yi ma bëri ji. damaa mën a bëri mën na te mis naa géew. garaawul mais est-ce que doy na est man njaatige moom kese yoroon écurie di bëri si. waaw man njaatige la man kese damay bëri si. mais Feugeuleu boo nekkee mais Feugeuleu yow ci récépissé euh, Lamsaar ngay bëree. waaw maa ngi écrire Lamsaar. mais écrire Lamsaar bu fekkee doo fa dem contact yi bu fekkee doo fa dem. entraîné non fa laay entraîné parce que écrire beeg sama kër a dem fa laay entraîné jee. fa laay hmm. entraîné. su weesoo ma dem entraîné ji fa laay entraîné sama salle donc salle bi may entraîné maa ngi ne wérélu ñoo bokk saal ñooy ànd chaque jour. mais ci écrire bi laay entraîné. sa open press lan moo tax duñ ko gis bëriwul Lamsaar yi comme bu non non non dara dañoo fayul naar bi xoromam rek kese la fayuñu naar bi xoromam koo gis sama koo ñëw sama open presse gisoo ko fayul naar bi xorom amul ku ci am bés te du la taxawal du la teewal koo gis fëgg la am bés ñëwul dafa fayul naar bi xoromam bu dee jàppul dafa fayul naar bi xoromam rek mais ma am fulaay tamit boo amee combat du ma ñëw rek. Hmm. mais loolu est non mais mais tey boo booy xool dooleew lamsaar des fois dina baax nga cenc mayen xool sa sa individuel yow sa bopp nga xool li lay jëmale kanam yow. Hmm. waaw. Hmm. Hmm. man su ma amee combat booy dañuy ñëw taqe fu ma amee combat mu ñëw maama Lamine. ñëw booy dañuy ñëw maama Lamine benn combat la ñëwul xaw ma ci lu mu newoon yeneen yi ci des taqe day ñëw euh, nu ñu koy waxatee. kii euh, Abu Ñaase sama combat bu ma am mi ngi sama wet Tigre noonu. ne ko rélu non pourtant dañuy ñëw ñu ci dul ñëw bëriwul Tidiane fay sama combat bi day ñëw combat bi damay ñëw sama combat bi passé la nees ñëwul ak kan Père Aline Diop ñu bari na ñu ci ñëwul combat bi passé mais man ay doon care man ragaluma loolu man kese damay bari bokk na si ñi ci gën a Max Mbergane kenn xamul lan mooy sa problème ak Max Mbergane mu nekk koo xamante ne plus ku am doole la biir lan saar c'est-à-dire ku ku gestu gis lan saar. lan mooy doole lan lan lan mooy doole. doole mooy koo xamante ne. doole yàlla rek moo am doole man Lamsaar kenn ëpp moo fa doole. Ah, doole doole Lamsaar man non man monument laa doole. loolu rek ngay bëree na ngay bëree nga gis gars yëpp loolu loolu loolu loolu ñuy yokk fit ñooy def loolu ñi nga xamante ne dañ leen a xam pour ñu sens. ñooy soxla loolu man jox man soxlawul kenn di ma yokk fit man bu ma laalee soow mi man bu ma laalee soow mi seere sama lappetaake drosine fëga la ñëw ma seere ko eh, bi mais fëga la defal daan fëga la yow ay ay jamono da ngay bëri mag si da ngaa nekk sa nga bëree nga daan nga jubilé daw nga daw waaw waaw loolu am na loolu am na loolu am na kooku suñu nijaay la suñu peer la moo doon tëgg mbapat lamsaar suñu suñu peer la mais xam nga dans nit boo leen demee di ànd ba mënatoo leen ànd kenn ku ne da ngay téye sa bopp boo leen séq ngeen séq jàmm loolu la dañ doon ànd suma ménagère la suma lépp la xam nga suma ménagère la woon suma ménagère la woon dan nañ ànd ba dem sendirtuñ suñu bopp après téye nañ suñu bopp loolu rek la du leneen après leneen li ci des boo ko gisee nga laaj ko ko mais loolu la ku ko respecté laa ku ko respecté laa parce que guddigal na ma bëccëgal na ma mm-hmm. parce que yor na ma xam nga pa àlla moom père àlla père àlla moom a yor ménager bu Pikine pa la moo ma njëkk a hmm. yor am ma am licence ma dem nangu sama licence ñëw jox ko parce que sama dëkkandoo sama nijaay la yéene naa ko sama xaalis loolu laa koy ñaanal parce que tarbiyu na laam xam nga laam boo ko tarbiyoo rek mën na laa may lu ne hmm. te dem na ci àll bi xam nga ñu tànc ko tass yaramam bu baax ba mu ñëw tey faay ba am li mu bëgg hmm. li des nag mooy gars yi ñaanal ko yàlla yàlla defal ko jàmm ba pare gars yi jël ko quoi gars yi jël ko loolooy problème bi quoi làmb ji xam nga mënoo fee nekk daan ñëpp mënul nekk da ngay daan yi ñuy daan la mhm. nañ ko may loxo ñoom nañ gëm ni rëg-rëg mbër la ko mbëri bu leen daanee baax na buñ ko daanee coow jibul mu defaru ji waat mais guy gi rëg-rëg da war a mën a taxaw yow dafa war a dafa war a oh, dafa gis na dama ne la làmb du maas dabante la làmb du maas mhm. tànk boo daan tege nga ci kaw saa yoo daanoo yaa ngi ci yaa ngi ci tinel yi di xaar mhm, rëg dafa bokk ci loo boobu mënuñu ko bañ ku ko ci bañ après day gën a métti parce que moo leen gën a neex xale dañ ko war a jël mm. nekkul lim dëkk caaray moo tax no mais dafa war a bëreeg ñoom mm. Mm. Eh. noonu la demee quoi mu war a bëreeg mu mu mu nekk mu nekk euh, lu ama am solo alors fëgg la suñu suñu émission suñu émission li ci des bariwul alors yaakaar naa abordé nañu sujet yu bari tey waxtaan nañu ci sujet yu bari ñëw euh, fi fi may faral di jeexalee mooy ñi nga xamante bokk nañu si ñi ñi nga gis ni euh, bokk nañu ñu la ñu la gën a neex ci làmb tuddal nga ma sànq neko bu ma juumul techniquement. waaw techniquement neko réel neko techniquement mm. quoi Moustapha Gueye. Mm. waaw moom neex na ma trop parce que suivre naa ko lu bari quoi Moustapha Gueye moom sama mbër la woon. Ah. Mm. mais sama mbër bi tax nag ma bëgg làmb sama mbër bi tax ma bëgg làmb am caaju fecc ak yooyu kooku bàyyi ma njoon la. bàyyi ma njoon. bàyyi lan moo la gënoon a neex ci Moustapha Gueye. Moustapha Gueye li ma gënoon lu ma gënoon neex ci moom boo nee tey mu dee. Hmm. combat boo ne tey mu dee ko da ciy génn comme combat maam njambaan ñu fekk ñu ne yooyu quoi bés yooyu daf may kii. vidéo boobu ba tey dama ko am sama hmm. com sama téléphone. combat boobu ndeysaan maam njambaan techniquement gis nga ku ko ku ko supérieur ci làmb pour yow ci mën bëre. Moustapha Gueye waaw. ko supérieur ci làmb no gis naa ko mën a bëre ni moom mais gisuma ko ko supérieur ci làmb ci techniquement techniquement techniquement yee ne ko techniquement dafa fort hmm. ñaari tànk yëpp ay techniquement dafa foor macha allah ne ko réelu d'accord nga euh, ki nga xamante ne moom combat ak Xaadim Njaay noo defoon kan nga faraloon. Oh, non Xaadim Njaay laa faraloon nag parce que boobu ma Xaadim Njaay sama réseau la wala réseau États-Unis ah <laughs> xanaa nag du réseau du réseau États-Unis xanaa waa France seen réseau dafa càng waa Espagne seen réseau góor moom maa ngi euh, jot réseau baaxul. Hmm? bu wér di la ñaanal jàmm waaw kooku kooku suñu rakki bopp la suñu fils la suñu xarit la. bëggee bu wér taalibe Bamba moom jàmm ci moom bu baax a baax. nga ne deuxième jour bi mu nga xam ne Siteu am deuxième laa xam ne am na fit loolu da la fi def. billaahi ñëw xoolal jël xaalis bi ñibbi gaan xëy entraînement moo naan ko mais booy démb mu naan ma waay dama xiifoon lekk naa xaalis bi. <laughs> pare xoolal pare na ci xoolal romb vif dem contact gi booy billaahi te xoolal mi ngi sew amul doole mais da ngay ba tas. mais booy yow la nag booy. waaw looloo tax nag ma gën am xel. moo tax combat am ak Zarko dama ci weranteeg nit ba teg ci sama xaalis combat am Zarko. benn gaa bu mm-hmm. dëkk Colobane bu dëkk bu nekk kolobaan bu dëkk Grand Yoff. Mm-hmm. lekk naa ci cent mille. dëgg la xam nga ci la ñëw signature ba di ko tooñ naan ko man waga laa mu naan ko jàmm gan laa dëkk seen affaire yooyu. waa ji ñëw mm-hmm. noonu sama gaayen la dafa may jàppale sama làmb teg ci cent mille ma teg ci cent mille. d'accord parce que man xam naa xam naa moom mooy kan quoi xam nga nit bu amee fit. yàlla def macha allah taay bi baax na bu amee fit rek mën na cee génn te tëlewul bëre. Mm. Siteu lu ñu bari xamuñu ko quoi tëlewul bëre mais boo ñëwoon di toog sunu contact rek nga xam ne tëlewul bari mm. mm. ñun entraînement booy bu fa ñëw dañ lay wal lu bari nga doog a miin. mais moom dafa teel miin du dugg ci jaxasoo ak mbër yi dafa teel a ci gars yi. Eh, moo tax yàlla na ko yàlla defal jàmm rek combat ak Papa Sow nekk combat bi gën a yomb ci combat bu gën a yomb ci combat mu daan ko tatu taq suuf ñi ñibbi ndànk. d' accord d' accord euh, yaa ngi doon wax ci CNG loo amul solo yaa ngi doon wax ni euh, d' mais association des lutteurs l' association jiite ko mais yow bokk nga ci association bi wala association bi ah non bokkoon naa ci nag ba ko booy kay rek ba ko yor Xaadim Gajaga après ma gis lu ma neexul ma génn par jàpp sama ñaambur mais Feugueleu tamit est que bëriwul histoire tamit Feugueleu est ce dëgg rek dëgg dëgg xam nga yow mënoo fi yëkkati ay mag ay magum jëmm jubali leen ci àll bi ñu dem nga naan ay toolu mbër ñu dem jubal bàyyi suñu temps yëpp dem ba ay ay tool nga wan ñu ay terrain dara fi daas di xëddën loolu ci yabaate la bokk te boobu ñu am soxla ñu doxi mu wooma ma ne ko bu ma woowati mm. yow sa intérêt rek ngay wër bu ma mm. woowati xooloo intérêt mbëri giri bëroo nag booba tey ñu ngi ko gis mi ngi doxal xam nga mi ngi mm. doxal mi ngi koy teg ci yoon quoi mi ngi doxal parce que lu am dina contacter mbëri xam nga wax ak ñoom ñu ngi koy ñaanal mu réussir ko d' accord donc mu nekk mu nekk lu am solo donc ma bàyyi la nga nga nga tàggatoo euh, ndaanaan yi nga nga bigab gars yi. waaw di bégab écurie Lamsaar rek di bégab écurie Lamsaar yëpp Lamsaar Tiwaawoon gépp maa ngi leen di bégee yaa ma xam di sant waa Amérique gi ma nekk xam nga waa Jé Cité maa ngi leen di sant bu baax.